ñun li ñu si bëggoon rek mooy tey dafa am fu ñu toll ci négociation yi. Mm. am fu ñu toll ci mise en œuvre des accords ñu xool ne comme nguur gi wàccoowul ak li mu waxoon. ñun ñu def suñu réunion d'évaluation. Mm. déjà ci début d'année. alors ñun waa SAEMS e ak suñu naataango waa CUSEMS e ñu toog xayma xam ne ah train yi nga xam ne yëgseegul ci gaar ba. moo mm. ëpp fuuf li yëg ci ci gaar ba ñu nekkoon lii laaj na yëglu. yëglu boobu nag alerte la te alerte dafa baax parce que nguur gi. bu dee dañuy waxtaan ak moom am loo xam ne juboo woon nañ ci d'abord muy ay accord de mille 2018 à 2022 hmm. ñu xam ne am na lu ci sooxe ñu ne ñun bëgguñu duggaat ci année scolaire boo xam ne bii day amaat ay jiixi jaaxa hmm. parce que xam nañ ne année électorale la ñu jëm ñu nekkoon nguur gi bu ñu sañoon nga jëmmal déggoo yi ñu xaatimoon nguur gi signé signé laa wax nañu moom d'accord na day jël vacances yi nga xam ne si lañ génn mooy bër bi si lay jëmmal accord yëpp moom moo wax loolu lu jëm ci wàllu tàggat gi ñu war a tàggat ay jàngalekat xam nga loolu du revendication foog nit ñi xam ko contrairement li ñuy wër di jiiñ enseignant yi ne xaalis laa ñuñ xaalis dañ ne nañ tàggat jàngalekat yi comme li ma fi waxoon bii passé jàngalekat mënul jàngale te amul formation mënut te nekk alors ñu waxoon ñu ne dana tàmbali premier juillet premier juillet la ñu waxoon ñu toog ba octobre gisuñu luy niroog loolu ñu jëlaat beneen poñ muy nekkinu décisionnaire yi nga xam ne nii tey te tàggat boobu sax boo gisee mu am solo mooy tàggat bi dafa concerner d'abord ñi ñuy wax les chargés de cours concerner également ñi nga xam ne moom la ñuy wax les demandeurs de mise en position de stage hmm. concerner li ñuy wax des professeurs contractuels mu am ñaari xeetu professeur contractuel mu am professeur contractuel yoo xam dañu takk seen biir di liggéey ngir éducation Sénégal depuis fukki at wala fukki at ak juróom wala ñaar fukki at. ba pare di nangu ñu leen fay ay salaire yu néew. kenn mënu leen ba léegi def ay titulaire ñu nangu loolu. tey ñu ne nañ leen former ñu toftal ci tamit ñu nga xam ne nii ñooñu la ñuy wax les professeurs contractuels issus di recrutement spécial. ñu jëloon leen dugal leen ci système bi te formé wuñu leen ñu ne loolu baaxul ci système bi mais ñooñu lañ leen former loolu mooy benn question. Mm. ñu ñuy wër di ñu wër wërloo beneen bi. boo jëlee décisionnaire yi ñoom ñooy kumba amul ndey ci fonction publique pourquoi parce que ñoom tey li dal seen kaw nattu la boo xam ne dara yóbbewu leen ko de lu dul ay lenteur administrative li ci ëpp mhm. maanaam ci fotu nguur gi la moo téye seen i këyit ba mu jëntal gi lenteur yooyu tax que tey ñu am statut boo xam ne bii limite d'âge bi moo leen dab mais loolu kon nguur gi war na ko mën saafara mhm. bon expliqué woon naa fi keroog bi ma ñëwee loi bi nga xam moo leen sax muy circulaire rek benn not circulaire bu président defoon en 1967 moo leen dugal ci situation boobu kon circulaire boobu boo xoolee sax ni ñu ko bindee ci mool bi dañuy wane ne lu waroon a méngoo rek ak benn situation provisoire mhm. nguur gi bàyyi ko 1967 ba tey 2023 bañ ko dindi mhm. muy ay injustice ay mettitu tar yu dal seen kaw yoo xam waroon nañ ko dindi depuis longtemps donc ñun laaju ñu ay xaalis ak yi ñun li ñuy laaj équité justice ñu toppatoo carrière jàngalekat yi ñu indi tamit li ñuy wax tàggat hmm. maanaam pour njàng mi gën a ñoŋ toftal ci nag ay problème yi ñu créé ñoom ñu ne lañ indi solution d'accord parce que xam nga créé problème mooy nga hmm. fekk budget yi waxoon naa fii ne école yi décembre la ñuy tëj a ngi fàttali hmm. parce que budget yooyu ñu waxoon bu ma la waxee ba tey amul solution budget boo xam ne bii matul àllub nen maanaam nga ñëw daggaat ko ci digg ba xam nga kon école boobu du dem. ak yeneen i problème donc tey si xayma. Mhm. plus de téeméer boo jël maanaam mun nañ wax ne ci moyen secondaire téeméer boo jël. Mhm. juróom-ñaar fukk yi topp nañ mot d'ordre bi kontaan ci lool mhm. te nag mooy bataaxalu yëglu mhm. boo xam ne ñu ngi xaar nguur gi mhm. di xam ndax moom dana indi ay saafara ci nu mu gën a gaawee wala déet très bien muy soixante-dix pour cent et puis tontu nga sama <laughs> laaj bi ma bëggoon laajaat sax muy li sabab évidemment li nga xam ne euh, moo tax nga ngeen tàbbi ci gerew boobule Fatab dañu jox la kàddu gi oui alors ci ci loolu aussi le le ministère de l'éducation nationale dafa génne communiqué ci communiqué bi eh, li mu ci wax bari na tudd na ay article jàpp ne également dafoo war am délai un mois boo xam ne moom mooy jiitu pour préavis avant que ngeen di dem ci grève loolu nga xam ne wax na ko mooy moom jàpp na ne yéen amu leen booba bi donc sàllawloowu leen ak yoon da ngeen a violer la loi lan ngeen di répondre ci loolu. waaw xam nga vraiment déglu nañ bataaxal boobu gis nañ ko jàngat nañ ko mais liñ ci njëkk a seetlu mooy gis nga éducation nationale li leen di wax. ñun ay jàngalekat lañ. Hmm. am na lu ñu mën a baal ñeneen mais duñ ko baal ministère éducation nationale. mooy li ñuy wax tamit bataaxal bu am ay faute. parce que nag comme ñun vraiment <laughs> dañu taamu ne tubaab mooy suñu langue officielle buñ koy bind ñoom lañu wuti. ñu hmm. leen ko jàngatal ñu dindi faute yi d'abord. Hmm. parce que nag loolu am na solo. xam nga loolu si loolu day restaurer confiance. parce que bu dee ministère bi moo bind bataaxal. moo am ay fautes bëgg a rek fi mu toll nii moo tax je pense man dama lay wax ñun xoola ministère. oui dañu ne mooy vitrine éducation. moom si moom la ñuy saytoo éducation. ñun bu ñu bëggee sax ñu bind jox ñu. loolu suñu métier ñu corriger le ne ah fii ak santé gi fii lii. dafa bo léegi kon loolu mooy aspect formel. Mm. si fond bi aussi franchement aussi ñoom am na yu nga xam ne bu ñu ci dugg xam nga lu tax. Mm. dañuy fàttaliku ne ñoom seen mission mooy ñoom ñoo tudd ministère utilisateur attention fonction publique dafa compliqué mhm. ñoom ñoo tudd ministère utilisateur mais ñoom du ñu ministère employeur fonction publique noonu lay doxee gis nga fonctionnaire boo gis benn ministère employeur la am mooy ministère de la fonction publique moo tax tamit nga gis ay rëq-rëq yu bëri ci lu ñu maîtriser wu ñu koy wax ci biir communiqué bi parce que ñoom utilisateur lañ ñoom bu doon tey si lu jëm ci wàllu politique bu éducation ñoom moom seen domaine la war nañ ci mën a wax programme yi ak fan lañ jëm fu ñu jógee mais tey souvent day am confusion de rôle ci dëkk bi alors benn bi mooy loolu donc domaine boobu ñu dugg sur le plan législatif mooy di wax ne lii yëg lale du sax seen domaine moo tax mu bëri ay rëq-rëq parce que ñun bi ñu déposé préavis du si ñoom lañ koy déposé déposé nañ ko au niveau du ministère de la fonction publique ba am suñu tontu. kon kooku boo ñëwee ne ko jotoo kii parce que concerné la boobu kañ ngeen ko déposé. yàgg na kañ. c'est-à-dire ñun parce que ñun dañuy faral di dégg. préavis de grève un mois avant la. un mm-hmm. mois waaw. waaw léegi yéen kañ ngeen def préavis bi. xam nga boo nee préavis de grève un mois avant la dama lay leeralal. Mm-hmm. il faut ngeen xam lan mooy préavis. préavis dañu ne boo koy déposé waxuñu la un mois avant la de dañu la ne dafa am un mois bu tudd dele d'attente mooy le délai légal mois. Mm-hmm. da ngeen bu baax. bi mm. dafa am ñaari condition yu mu war a dajale pour mu mën a valable. li mm. ci njëkk mooy da ngay respecter li ñuy wax délai d'attente. Mm. mooy délai légal ba pare respecté waat beneen poñ bu am solo muy délai de couverture ñun ñaar yëpp lañ respecté mooy waa Sen TV yal na ko yàlla tere kontaanuñu ci liggéey bi ni mu fiy doxee loi moo leen may yéen convention. maanaam ak code du travail ñoo leen may convention C87 ak C98 d' abord muy des conventions internationales yu nga xam c'est supranational ñoo nekk au-dessus des lois au niveau national ba pare ñëwaat tey si biir dëkk bi fii am loi yu leen ko mayaat mooy la loi 97 17 ak encore bu doon fonctionnaire si dañuy wax 61 33 du 15 juin 1961. Hmm. yooyu yëpp reconnaître fon euh, charte fondamentale u pays bi nag. ñëwati ci loolu muy constitution dëggal loolu reconnaître droit de grève. waaw loolu. kon ba tey loolu. boo euh, réeroo wuñ ci de mais préavis. laa la laaj wax léegi nag tëralin bi ngeen ko. un mois avant. déedéet mais dama lay euh, fàttali ne du un mois avant. dama lay expliquer budul un mois avant. préavis euh, nday faat mhm. dañu la ne pour nga déposer ko mu valable nga ñaari conditions yi daje du un mois un mois avant mooy délai d'attente mhm. mais dafa am délai de couverture. délai de couverture bokkul ak lii moom laay joxe exemple ma ne yéen su leen ne woon da di dem tey grève xam nga lu ñu leen sant da ngeen di wax d'abord yan poñ moom moo leen fi naqari fii ngeen bind ko ci bataaxal ban li ñuy wax bataaxalu yëglu boo leen paree bu dee par exemple da ngeen bëgg a dem grève da ngeen di dem déposer ko le premier janvier ngeen xaar ba le 31 janvier délai boobu nga dégg noonu mooy dele d'attente mooy délai légal maanaam da ngeen di may employeur bi délai ngir mu mën a waxtaan ak yéen ci poñ yooyu na est-ce que loolu ça a été respecté donc bien xam nga lu tax c'est respecté hmm. en fait d'abord dama leen di fàttali ne ñun année scolaire la syndicat di liggéeyee année scolaire boobu day correspondre tamit ak benn période ci année civile bi kon ñun depuis ajag-jag bu ma doon wax loolu comme wolof loolu la xam dañuy wax ne ñun chaque année bu ñuy déposer dañuy ñëw wax lan moo ñu yëkkati ba pare respecter délai légal ba pare préciser délai de couverture jox ko ki nga xam ne mooy ministre de la fonction publique mu reconnaître mu ne jot naa bataaxal bi ba pare jox ñu li ñuy wax maanaam décharge ba pare def réponse jot nañ loolu yëpp ñu téye hmm. donc foofu amul problème xam nga lan mooy coow li Sénégal nit ñi dañu war di dem toujours si li ñuy wax ali kalaj gi hmm. ali kalaj gi mooy vers l'essentiel syndicat yi nekkuñu en faute par rapport à la procédure hmm. mais tamit ministère foog nga xam ne comme li ma wax sànq dañu am ay doxalin yoo xam ne pour ñoom mën nañu toujours di def li ñuy wax désinformation. non mais yéen mooy seen tutelle yaa